ñun instant yii ñun jàmbaari gaan instant yii pare nañ de. Hmm. wala Serigne Touba Mbacke si de moom instant yii nii pare na lépp lu waroon si làmb ju nekk instant bii nii def na ko instant yii xamal lu moo des yàlla rek moo des ak ay mbiram wala Serigne Touba Mbacke dañu ñaan yàlla yàlla ànd ak waaw. yàlla yàlla na ba ngeen ñii ne Siteu boos bi dafa génn ñii ne entraînement la ñii ne feebar la yow en wax ak état ñu yore. non ñooñu li ñuy wax xamuñu ko sax parce que Serigne Touba Mbacke ñooñu di wax lépp lu ñuy wax lu ne xamuñu ko ñu xam nañ Siteu quoi Siteu laamu jum fonk ak laamu jum fonkul ñu xam nañ ko te Siteu laamu ji nii nii bakkanam la ci teg. wóor na Serigne Touba Mbacke yemalewu ko ak dara wër na Serigne Touba Mbacke te Serigne li nga yónnee yàqamtu ko taxawaalo war ko wër na Serigne Touba Mbacke Modou Lo na waajal bu baax a baax a baax a baax te xam ne bu ko booyee bi jàppee wër na Serigne Touba Mbacke dina xam ne bii du yooyu. mais nga tax ñu jël ko xam nga moo tax ñu jël ko xam nañ ni ndaanaan la suñ ko daanee dañuy daan ndaanaan moo ñu jël ko wër na Serigne Touba Mbacke te combat royal la te banlieue bi ñëpp soobu nañu amuñu waaw nañ ñu ko aal ñun waa jàmm gën waaw ñu xool ba xam. nañ kay gisee nañ toog ma xoolaat ko bu baax mais man état bi mu yor man dooy na ma ko waaw xaw ma nag keneen mais état bi mu yor ñun waa jàmm ko ñun doy nañu woolu nañ ko si ndax ñun xam nañ qualité bëreem bu mu yor quoi xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax gars yi nag ñu ngi wax quoi di critiquer di wax ay lépp fa fa yëpp si Modou Lo lañ ko jox Modou Lo moo doole. waaw Modou Lo moo ne nañ Modou moo ëpp doole moo mën moo dàq bëree moo dàq xeex ku la ko yombalal nag moo la ko xañ ku la ko yombalal wóodo Serigne Touba Mbacke la wa taalaay Modou Lo ba yaakaar ne laam ngi day yow moom ngi nax boppam de wóor na Serigne Touba Mbacke bon yow loolu day xaar de day xaar ba jamono neex parce que Serigne Saliou moo gën a miin bés bu magat loolu yëpp tànn. koy jumloo si laamu ji dama koy jumloo ndax lu mu am dama koy jumloo gars yi dañu ko lalal pees quoi te pees bi yàgg yàgg yàgg yàgg da ciy dugg moom war na xam loolu sax pees bi ñu ko lalal yàgg yàgg da ciy dugg ñun suñu roi dañoo leer naññ suñu roi dañoo leer naññ naññ naññ naññ moom xam na loolu bu baax. léegi yéen wax yéen a Modou ba ba Siteu dox dox ba làmb ñu taxaw. waaw dañuy may ndax xaalis quoi dañuy may ndax xaalis làmb moom amul ay mbokk ak affaire yooyu noonu dañuy may ndax xaalis liggéey la quoi lu si danaan liggéey ngir dëkk waaye am doole ngir say noonu waaw moom dañuy may ndax xaalis xëy na tamit Modou Lô dafa yéene Siteu quoi moo tax may ko sens waa moo tax sens moom mu ñu may moo tax duñ ko mos a dépassé si dara quoi bi moom dañ koy jox sens dañ ko dañ ko koy jox ba mat sëkk. waaw kay noonu la demee mais jour làmb ja nag voilà. seen seen da koo ragal góor yow kooku du ragal góor góor noo mën di toll du la ragal. wóor na Serigne Touba Mbacke ñun xam nañ jàmbaar bu nekk ci moom ak bañkat bu nekk ci moom wóor na Serigne Touba Mbacke Siteu amul góor yàlla bu muy ragal si àddunaam non non Siteu bu ragalee bu ñëwee jàmm gaa yi duñ koy rey duñ koy bëm. moo yooyu de. laa ilaha illallah. dañ ñëw dooleen wax di maa la gën a xotteeku a maa la gën a yàqu la ko wax mu loolu ne ko maa la gën a xotteeku si la ko maa la gën a yàqu maa la gën a nëb maa la gën a xasaw maa la gën a xeeñ man mi dul sangu booy moloo booy na ko mu réglé booy te ko mu yem moloo da ngay yem barki sëriñ Fallou bu la booy bi jàppee nga xam ne bii di yooyu bi tingom si singom bi la bu la jàppee dina la taabi ni singom yow booy ragalal booy biiru yooyu de booy yaakaaree ne ñu ngi doon bëre ak Siteu yaa sa bopp de Siteu li nga ko yónni yàqamte ko taxawaalu waru ko te guddi guddi guddi guddi roi bi day ñëw yow loolu xam loolu roi bi mu guddi guddi day ñëw jaamu gën amuñu sax lu ñu siy xel ñaar wala ñu siy bàyyi xel wala dara non non naa ngi xam nañ lu ñu yor quoi xam nañ produit bu ñu yor xam nañ ko bu baax xam nañ qualité bu ñu yor bu baax xam nañ ko biir yooyu de biir ndaawa bi de biir njool bi la mu ngi leen di sànni ay lay dox parcelle par parcelle moom. Ah. kenn mënu ma fa génnee parcelle. nit du ma fa génne jamais de la vie. damay dem dund sama damay dem damay dem dund ba li may dund ñibbi si waat nekk sama bopp waaw. naan léegi bu parcelle nga fanaan da barki Serigne Touba Mbacke fa laa jógee dara dara jeey Mouhamad laa lay waatal bu dee jugee ma foofu jugee ma Aliya ba cay des noonu yàlla naa gën a yéesu yàlla sax Aliya ba cay des laa jógee léegi laa jógee léegi laa fa jógee léegi yàggul dara damaa dem sama gaale di daal lu nga kóol ma na ma nii la demee man la aca yow yaa ko fa mënu ma laa bañool dara sama àdduna ko waaw waaw dama bàyyi yow non non man moom ay miin moom mooy loolu man moom mooy loolu. non non booy dund da nga dund loo fekkee quoi man lu ma fekkee laay dund xaw ma nag keneen lu mu fekkee woon mais man lu ma fekkee dama koy dund. cadre làmb cadre làmb la quoi mais cadre dund loo fekkee dama koy dund man ba mu neex ragaluma bu ma jëm waaw ndax poche kenn yóbbu ma sama poche ma Seydou Fass doxu woon ngir combat bi. non non doxee ma fa ngir combat bi damay dem ma fekkee quoi su ma heure ñibbi jëlee damay ñibbi si waat mais tamit kenn du ma fa wax loo xamante ne lu ma naqari la wala dara non non. ndax bii du yooyu quoi bii nekkul koo xamante ne danga koy wax loolu naqari lu ko naqari mu naan la nii di la xool di sëgg non non bii du yooyu de bi boo koy bippé muy sonné. tey non problème <laughs> <laughs> ñun ci problème lañ juddoo de jaamu nga lañ dëkk ci problème lañ juddoo ba màgg ba toll niñ toll waaw ñun buñ demee buñ demee génn di ragal wala ñuy bàyyi xel kon ay góor jigéen la ñuy doon te ay góor yàlla tigg lañ waaw kay bay war jàmbaar bay war béñkat bee si waa jaam nga da ngay jàpp mooy waaw mu ne su ma tàggu su ma tàggu woon lamb leen kooku Baye Fall la Papis Baye Fall la quoi Baye moom Baye Fall la Papis jàmbaar la Papis góor bëgg waa jàmm kan mu la fen Papis daa bëgg waa jàmm kan Papis maa moom dañuy déggante lu bëri sama waay la Modou Mbaye moom ma ko présenté woon ñu xamante sama nit la ay cantam yi muy def chaque année weer koor damay dem sama la sama kuréel fi nekkoon léegi dama lay tegal ay vocalam jamono yo Kamba moo ko ama ak waaw kay moom jàmm nga la bokk waaw jam nga la bokk mais gën a jege gën a yooy gën a jege gën a yooy moom li ko war ci Modou Lo na ko def mu si bàyyi dara lépp lu mu def na ko def ñoom nañ ñëw si jàmm ñu daan leen si jàmm ñu ñibbiwaat si jàmm. Modou bi Modou Lo bi nekk daa écarté bu nekk daa écarté bu nekkee écarté daa écarté Papis si làmb ji daa juum laa def erreur bu ko mos a écarté na ñëw. man bu ñëwee moom dinaa kontaan mais bu ñëwul du ma bëgg na ñëw ndax jël bi ma war a daanu Modou Lo foofu Papis ñëw waaw jël bi ma a daanu bu def dooloo barke yàlla dama koy humilier lu gararaaw laa lay wax xam nga nañ Modou Lo du dellu ginnaaw loolu la gars yi wax na tamit gars yi dinañ. seen xel teel hmm. ma laa ñun luñ def tàmpi ñoom ñoom luñ munti def ñoom tàmpi ñu ragaluñ fuñ jëm ñun dañoo pare démb tey soog a ñëw waaw dañoo pare xam nga kuy xalaat ak kuy sikki sàkk mooy bàyyi xel loolu mais ñun xaaluñu dara sikki sàkk wuñu dara nag ñun lu ñu yor xam nañ ko quoi xeetu ngoro dafa ko li ko woo waaw. moom nee na jël naa si bi nee na ko waaw ah, loolu moom man moom wóoru ma. ay lonko ma wóoru ma quoi man du ma wax loo xamante ne. xaw ma ko ku dee ak sa bàmmeel quoi moom ak si la dañuy dëgganteeg ak yooyu noonu man moom loolu moom da dëgg yàlla da ci na ma leer mais man Bamba man personnellement man Pape bi sama doom sama xarit la sama nit la woon waaw dañ koy dañ koy doon dund naaj sama nit la jox ma cër nag cër bu ma cër bu waaw jox ma cër bu baax wër na Sëriñ Tuubaa ma delloo ko cër boobu mais ñun làmb ñun jàmm nga xaw ma keneen mais ñun làmb bu xasee ba jege si yooyu yëpp dañ koy jël teg bu jeexee nag waaw ay déggante ay téléphone ak ay yooyu yëpp day xaar balaa muy jeexee nag suñu mënee nekkaat si jàmm ñu nekkaat si jàmm bu mënul nekkaat si jàmm tàmpi ñoo naka fu ñu jëm si la ñu suñu bakkan bi lañ ci teg yemalewu ñu ko dara si àdduna waaw comme moom nu mel si mbooloo naka fa mel quoi yàlla moo leen boole dañuy ànd te yàlla tax ñun si la moom yàlla moo ñu boole moom dañuy ànd ak moom te yàlla tax seet ñu seet xool yu si moom dara waaw ah, xooluñ si moom dara loo xamante ne safaan la wala lu ñaaw la wala dara quoi ndax dañoo yar bi ñuy xale ba léegi maa ak moom waaw. le 24 ngeen ah, ñun pare nañ de pare nañ Modou Lo bu def dara laa la wax lu ko nit mos a def si làmb Siteu dina ko ko def humilier humilier laa la wax. te lam ji man balaa maa gën a neex lam ji man ba déggoon wax lam man baa ma laxasaay man man lam ji man balaa gën a neex Modou Lo encaissé encaissé coup si la si la encaissé coup Modou Lo ñuy soog a bëre ku nekk jël jël jël jël sa coup morom ba pare ñuy soog a bëre nga xool billaahi wallaahi wataalaay bu dee si la du ko humilier yàlla naa gën a yées bu jëlee coup Modou taxaw Modou jël coup nga xam ne bii yooyu dama bàyyi na ko jël yàlla na yàlla def loolu laa la wax bu ko Siteu mu daanu bu ko Siteu dóorul mu daanu bu arbitre sifflé na ah Modou Lo encaissé ko Siteu Siteu Siteu encaissé ko Modou Lo ñu taxaw ngeen xool barki Serigne Fallou ma weer ko lu ko mbër Moussa def ma def ko ko billaay wallaay wa taalaay fi laa ko waxee te di nga ñëwaat wax laa yaan ma ko bokkul waaye dama bàyyi yow waaw yooyu waay du suñu xarit la ñun amuñu amuñu amuñu xarit ci dëggoo leen la wax këjëm Aliou Touré bii la nekkoon dëgg la këjëm Aliou Touré dem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm da xaaral ko àjjana dëggoo leen la wax mais ñun amuñu amuñu ay xarit ci amuñu xarit ci làmb quoi non non si amuñu xarit ci làmb si la ñëpp lay bëreel si la ñëpp lay bëreel ñëpp waaw dama bàyyi yow eh si da li doon li ngeen doon li xam ngeen ko. nañ ko bu baax xam nañ ko de. man damay xam nga moo tax ñu jël ko ak ñu ko xam xam nañ kat lay ne ci moom xam nañ daanaan la su boo ko daanee da ngay daan daanaan moo tax ñu jël ko te ñun lu ñu soxla moom la yor te far fos dañ koy dañ koy jël muy roi bi roi roi à si ko ñàkk de si da ko indi de. billaay da ko indi loolu garaaw laa wax laa ma ji amul lenn loo xamante ne dama ko si xel ñaar wala may tëdd man di ko xalaat wala dara non non man xaatuma dara seen laa ma ji non non man laa ma ji xam lu ma xalaat loo xamante ne man maa ko moom dama koy jël gi si fula ñëwaat toog jaral leen su moo nekk waaw Sira moo nekk benn bokk taale boo xamante ne Serigne Touba moo doon boole ak moom quoi. ñuy ànd te yàlla tax àndawuñu ngir dara. lu mu am da koy bokk ak jàmbaare moo tax lu ñu am da nga koy yéene. mu def Serigne Touba Mbacke nga place place bi ma nekk nii nii nii nii nii nii. laay El Esporo lépp loo gis jàmm gën. bu rafet wala ay baas wala leneen ak leneen ak leneen ak leneen jëmm jooju moo ko defar. wóor na Serigne Touba kooku si la yamale dara bakkanam la si la teg ndax xam ne góor yàlla yombul quoi jàmbaar yombul ku nekk si biir goxam ba pare di dimbali waa goxam yombul laay la la demee laay les pro jàmbaar la wóor na Serigne Touba ñu bokk benn dëkk Paal ñu ngay doomu Paal lañ ca Ndar. waaw noonu la demee kon yow si ñun nga bokk tey waaw noonu la demee <laughs> yow day daw rek de ñu ragal buñ jëm de wóor na Serigne Touba Mbacké tey lan ngay wax Modou Lo lan ngay wax waa Parcelles waaw waa Parcelles nañ ñëw si jàmm rek waaw nañ ñëw si dal ñëw si jàmm ñu ngi leen di xaar si jàmm waaw ñu ngi leen di xaar si dal ñu ngi leen di xaar si jàmm ñun ñu ngi leen di xaar si jàmm ñu ngi leen di xaar si dal ñu ngi leen di xaar si leneen ak leneen ak leneen ak leneen waaw ñu moom ñoom lu ñu ñëwee rek ñun dinañ ñëwee noonu ñu ragaluñ loolu bu ñëwee dal du ñëw ci dal waaw bu ñëwee ci leneen ak leneen waaw fii la buujoo ko waaw ñun ci digg ñàngatang bi lañu dëkk fu ndox bi di taawee ci biir barax yi ci alu payan bi xam ngeen ko ñëw ragaluñ fu ñu jëm voilà noonu la demee nag waaw non non balaa ma tëj borom dëkk bi wax ba pare mu ngi ne eh moo géré saa yow waaye moo loolu day daw rek. xam nga jàpp si rek. lu gerte la waaw mais mooy loolu. waaw. waaw dañu yor kàddu bi waaw. waaw di yàlla nag yàlla suturaal ñu. waaw yàlla suturaal ñu may ñu ndam ci làmb ji. ndax làmb ji soxla nañ ko trop trop trop trop wër na Serigne Touba Mbacke. di wax ne Baye Sidi Mbacke alxuraan borom Daaru Salaam ak gaawaan suñu yaakaar tey ëllëg. waaw ñu ngi lay ñaan. waaw du ma wax sax du ma wax ndax borom na gën a gaaw. si la mu si gëblë gi mu si gëblë gi ci digg ñàngatang bi ci gëblë gi la nekk instant bii ragaluñ fu jëm de li la waxoon ci contre Papa Sow laa lay wax Modou Lo ne ko la mu saf kaka macc moo ko xam ma ne ko woon wengal laa yore cafkam Dakar ku ñor da nga cey am beneen cafka lii moo am ñun ragaluñ luñ ñu jëm du jàmm gën la de dañuy mocc ay bar di génnee ay mbër te ku mel ne Sylla Taalé Bamba la jàmbaar yi wala génnee la 24 novembre mu war a jàmbaar ak te Modou daa war a pas ba jamono ne xaar may ma jaagal laa ko war booleel mu xaar loo ko ca tëngëj ñu naka luñ loolu de jàmm gën lañ dëkk barki Serigne Touba pël bi nee na Sousa Bonne laa wat ko ku ragal musiba doo falu ne debbo janan kurtu janan ne hëpp ya gor wanaa gor tous dara du xew ragaluñ ko de jàmm gën lañ dëkk duñ gën di ko cuub de bu nga nee cuub yàlla nañ nekk ay góor jigéen wóor na Serigne Touba Mbacke ragaluñ fuñ jëm. waaw noonu la demee mais laay LS Pro. laay LS Pro na ko na si jàmbaari teg loxo quoi. waaw affiche moom bâche defar te laay lu jàmbaari dara ñaxam la ñaxam wóor na Serigne Touba Mbacke lay bokk ak bu na Serigne Touba Mbacke xam nga rek loolu yombul quoi waaw waaw moom góor yàlla la wër na Serigne Touba Mbacke jàmbaar la. billaahi wallaahi watalaay jàmbaar la de day taxaw waa jàmm gën si lépp wur na Serigne Touba Mbacke laay elles pour yow gën a yàgg gën a wér yàlla la yàlla defal jaamu dooleel la may la kattan may la wérgu yaram place yi gën a saawaan gën a baawaan si lépp waaw yéen ñi nga xamante ne yéenay si raan képp ku bëgg baas baa nga bëgg tiset da nga bëgg leneen ak leneen loo xamante ne ay wàllum aar rek wala leneen ak leneen numéro am naa la ko jox ngeen woo ngeen digganteeg moom lépp loo bëgg si ay 17 ak leneen ak leneen ak lépp loo bëgg dinañ ko am si moom mooy loolu. waaw yàlla na yàlla def jaama ah. jërëjëf Serigne Touba waaw.